billahi alaaji waroon fee xam alaaji naan baye gore o waxtu eh eh eh eh kante sunu biir ñu jàppante sunu biir mi ngi tàngal manta ko alaaji toogal déglu li muy déglu mi nga génn man nag war nañ war nañ dem si jëm si waale bu may ñëw sax may sant yi dégg nga fu mu génn déglu ko ci loolu maa ngi nii nam la ci yii dox ci lay dox doo nekk sekk la déglu déglu ko de ndeysaan ah. kenn ci suuf rek foofu rek censure ndànk-ndànk kenn du ñàkk ah, ma yaa ko moom. ci loo ne. coupé lii. may sama xol bi rek. yaay bari ci yàlla. mburu ci loo ne. man daal li la mën a xamal mooy. jéem lu ma la ko tere. bu fekkee da ngay fo ñun fowuñu. Mm. dañu di mag. Ah. te sàmb mii. Mm. kaful de. ah moom xam na ko sax. xam na ni kafu ma de. nee naa ko dugg nga si tunnel nag amatul dellu ginnaaw. impasse laa ne impasse. Mm. maa dugg ci koñ bi nga fàtt ko. mënatuma dellu gannaaw. waaw doo bi mbëkk rek kii mooy kan. kii nii. Mm. Ah. kon waxoo ko ma naan allah ji ñaan ñaan. Ah. tukki ñaan sàmm ngoog. borom avion yi. ñaan ah, man nag man li may nekk Sénégal bariwul. moo dul bari daanaka damay dukki rek. waaw ah, moom la ko ah fi ne nga dem noonu. ah daanaka Afrique dem naa dëkk yëpp ak ak Europe. Hmm. daanaka daal géographie laa demagul si dëkk yi. <laughs> géographie daal moo ma dese xam naa si. waaw foofu de dama ko xalaat tukki na de géographie. ah yow tukki nga kon quoi. nga ne géographie moom gisaguma ko fa jógee. te géographie moom mi moo toog ba visa bi jeex. waaw waaw waaw. waaw alaaj day tukki moom bu demee visa nga toog ba mu jeex. dama kaa xamut. dëgg la muy dégg doon di wax rek. da ngay dem foofu waaw. Samb waaw boo ko taxee. bëgg naa nga yóbbu ko. waaw. wax na la jàngkat la woon. bu mag moom xam na ko xam na ko ci man. da nga doon jàng eh. Ah. musoo njort loolu ci man sentiroo ko ci man. man daal am na benn question moom mu la ko posé nga répondre waaw ma xam ne yow moom jàngkat nga moom. moo bi gën a gudd léegi en français wax ma ko rek. waaw ah, ci loolu laay ñëw nii. Ah. mu ne ma le poteau. surface perpendiculaire. waaw. loolu kay ku xam na ko. wax ko waaw. dama lay làkk fi mu toll nii pour xam ne loolu jaaxaluma la surface perpendiculaire. de mon waaw axial waaw <laughs> waaw waaw loolu kay xanaa looloo gën a diis li nga may laaj a tontu bi loolu du tontu bi dama koy wax ni loolu ah, dégg naa tubaab waaye man li ma la laaj laa bëgg nga tontu ma léegi kay kay man li ma la laaj xam nga moo gën a difficile may laaj waaye man li ma la laaj laa bëgg nga tontu ma xanaa loolu baax na looloo baax kon ah. nga ne ko moo mu gën a gudd waaw li français di làkk te mu gën a gudd ci làkki tubaab waaw la ah. dëggal fu mu génn. alaaji boo jàppee ca cat la. waaw ma jàpp ca cat da ngay xëcc da ngay xëcc rek. déedéet sàmm yokk nga fi say point. wóyooyooy yokk nga say point. Eh? mu ne. wóyooyooy maa ngi dee. kan la yow waaw. Eh, ki dañ leen di sampal. alaaj alaaj marchandise fa muy jate jàkk bi saa bu jeexalee e e e e